Aliou dama ak Thiatou li nga xamante ne Youssou Dieng ak ak kii di Thiatou Linguère Thiatou Linguère moo sol ngemb jaune noir moo wan ginnaaw kon boog moo wan ginnaaw walla rek bay jaay break fu mu toll na ma wax ko wan ginnaaw kon boog moo wan ginnaaw tey na moom dinaa dinaa introduire wax correct la moo ngi tàggatoo caatu Linguère caatu Linguère numéro 2 te ba caatu moo ngi xaw ma day ñaan na taf ne ko sa kanam nga raay ko sa yaram ba jàkkaaroo caat ku nekk nga xaase moroom caat timit moo ngi ñaan taf na tibb na suuf dem na si moom aca mu dem ñoo ngay leewtoo caat ñam na delaat jiw si jeen Youssou Dieng sol na ko Youssou Dieng sol na ko ah eh, Thiat door na Thiat door na Xaadim dem na sama raw waaye ku nekk ah moom moom sànni téere yi sànni na téere yi lii de mooy musique amul dara si làmb ku fañ bu taxantee rek nga sànni nga baat nga nga baat na musique ba sëñ bi kay na lay boo daanoo mu la yaa sànni samay téere de is jeen numéro 2 ak Djily Thiatou Linguère ñoom ñaar ku nekk ñoom na sa morom ku nekk rek le ku xam na sa lu muy saf waaw Thiatou ngi dóor Thiatou ngi suqi loolay suqi loolay suqi te Thiatou Thiatou Linguère suqi na ñoo ngay leew too ñoom ñaar ku nekk ngi xalaat ah! ba dina tàng ba songoo nañ jàppante nañ ca jàpp na sa ngemb la moo ngay suqi Youssou tamit suqi na car dóor car a ngi dóor fayu Youssou ngi fayu ah combat bi na combat bi sànq cey lii caat li ngay song Thiaat Linguère ngay door jàppante nañ Thiaat Linguère jàpp na lamb jàpp na ngemb Thiaat jàpp na ngemb ah. cinq minutes cinq minutes cinq minutes dix minutes combat bi jeex. kon nañu bëree bu ñu bëreewul bu combat bi jeexee dañu obligé déclarer ko nul il faudra ñu bëree. 5 minutes 5 minutes la noonu arrangé wu leen. kon bëre leen dégg ngeen ko. loo bi daa soxla <laughs> cameraman bi te jàmpata nañ fu mu toll nii moom war nañ bëri fu mu toll nii 3 minutes mu des 2 minutes ñu àtte combat baa ngi noonu ku nekk nga jàpp sa morom ñu ngi xam si ngengeñ xay xamul loolu xay xamul li ngengeñ ngengeñ c'est la même chose ngengeñ ak ngengeñ ngengeñ ma fu mu dëkk ngengeñ fa la dëkk càccu li ngeer su fekkee da ngay yuum yaa xam ni combat bi jeex eh fokk na ko fokk na ko daan na ko daan na na tey lii mais lii la waaye lii la nii tet li ngeen kan yow kan mu ngi laajte ni yaa ko daanee waaye tet li ngeen mi Alsaan Mbaye jàpp na si combat bi Mbaye Diop xam ñu ma la doon wax sama yaay ñoom Mbaye Mbaye xam nga man maa ngi sant yëpp waa Jaxaay mais aw ma jàppale nañ ma jàppale man Jaxaay la am billaay wallaay buñ ma jaaxal jàppale ñu am Ada Fass non dañ na ma teel xam naa ne maa xamul sama baba woo ma génn ma mooy génn ngémboo ma sama kër sama kër maam laa ngémboo samay bàjjen maa ngi sant ñëpp di sant sama booy expliqué ñu combat bi expliqué ñu combat bi. waaw dañoo jàpp ne ma xam ne ëpp ma doole mu jàppoon téere bi téere yi la téye moo tax mënul rëcc parce que Serigne ma fexe ba mu rëcc ma bëtt ko daw plaqué ko. ma nekk kanam fu mu toll nii. waaw booy nañ ñëw man loolu liis njaaw laa soxla. liis laa soxla ma du wax naa ko waxaat man liis laa soxla du maag ñii sax wóor na yàlla du maag ñii maa ngi sant nag maa ngi sant ñëpp maa ngi sant matu sama yaay la sama yaay kii. barki Serigne Touba Mbacke victoire moom laa ko may may naa ko waa Alsaan Mbay may naa la victoire bi barki Seydina Mouhamed yaa yaa yaa ñoom may naa leen combat bi ay Mboy Diop Tafa Seck Mounas xam maa ngi may ay ay taasoo na sama coach ma daw sama coach rek laa gis billaay wallaay wata sama mag Zal Ngom bay sa doy xol bee sedd